yokkoo itam téeméer ak lu teg wàññeeku ndax euh, lim boobu lee wér nañu ba dellu ca seeni i njaboot loolu nag yóbbu na euh, limub ñi wér ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ci ñetti junni ak téeméer ca yooyu jamono euh, téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent fukk ak ñeent na ci bàcc bakkan des itam yokku na ñu ngi ci euh, juróom fukk ak euh, juróom benn lu ëpp ñaar fukk itam euh, sonn lool ci aji tawat joo jilee lu jëm yeneen itam ci mbas mi ak i njeexintalam ci diwaanu Saalum la nu gis mooy bërëbu fajukaay jafe-jafe la di jànkonteel bu nu ko waxee li ko waral mooy koppar ya fa daan dugg dafa wàññeeku ndax aji tawat ji ñu bëri dañuy daw bërëbu fajukaay yooyu ndax mbas mi di dégg ci biir xibaar yi ñiy yëngatu ci lu ni mel ci diwaanu Saalum itam ay kàddu euh, la ñu ca dénk Ibrahima Diame euh, leneen itam moo xamante ne si xibaar la euh, muy Sudjust nag di kuréelu ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ci lu jëm ci wàllum yoon ak yoonal nee ñu bisub tey ji bu dellusee maanaam ajjuma bi nu dëgmal daanu amal ab doxub ñaxtu la ko waral nag nee ñu du nag lu dul seen jëwriñ ak itam soofantal gaal daal gi ñu ne daf ko soofantal seeni tawat beneen ponk mbokk ca diwaanu Ndar ak statut fédère bu xam ngeen ne coow juddu woon na fan yi euh, gis ngeen ko noonu ci àddina bi euh, lu ci mel ne statut yoo xam ne euh, dafay dellusiwaat ci taarix yoo xam ne daal dañ ca am lu ñu cay wax ñu bëri ci ay réew des ko daaneel ba taxoon na sax ñu ne nag statut bu fédère boobee des koo war a jëlee ndar géej loolu nag Ousseynou Diop laaj na ci ay boroom xam-xam ñoom itam lu nu mel lañu wax daañu dem itam ca diwaanu Côte d'Ivoire muy xibaaru biti réew ak benn ponk boobile xam ngeen amaloon ca bët gànnaaru réew ma fa jege lool réewu réewum Burkina Faso ba tax na sax lu uh, toll ci fukki doomu aadama uh, ñàkk ci seen bakkan ilimaan i jëwriñ dafa nekk maanaam nekkum neggandiku ne nag dinañ def seen kem kàttan daal uh, ba way fipp yooye ñu mën a jàmmaarloo ak ñoom li ci yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce rafetlu ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen euh, dalal ci euh, di leen itam ziar ci aljuma ji tey jii di fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2020 xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak itam euh, la am ca Kafountine ca diwaanu Casamance benn soxna mu ñàkk bakkanam moom nag dafa jóge woon ca tefes ga la tax nag mu ñàkk bakkanam ci tiitaange la ko jëlee maanaam daal yuxuy kankuran yi la dégg fit dem mu jaare fa itam muy ji boroomam def nee ñu euh, mooy rek di fàttali couvre-feu ak waxtu wi bu jegee xam ngeen ne mbas meeg tolluwaay ba tax na sax ñu ne euh, lu ni mel des koy tegandi fi suuf ba jëmmi jamono. ñu des ba tey ci mbas mi ak euh, Sénégal ak euh, tey ji caal juma ji li mub ji mu ne euh, yokk na ci ñu ko amoon muy juróom-ñeent fukk ak ñaar juróom-ñaar fukki ak ñeent ay cas contact la ca des di ay cas communautaire ñu gis ko diggante Ndakaaru Kébémer ak Touba waaye nag Dakar moo ci ëppale ndax am na ci fukk ak ñett ci ay kaa communautaire leneen itam lees mën a wax mooy mbas mi ba mu duggee ci réew mi ba léegi ñetti junni ak téeméer faju nañu ba wér ca yooyu jamono junni ak juróom-benni téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoom ñi ngi ci am pàcc li nga xam ne nag ëpp nañ ñaar fukk ci ab lim ñoom ci aji tawat jooju ñu nga Sowetaas ca yooyu jamono juróom fukki doomu aadama ak juróom-benn ñàkk nañ ci seen bakkan ci noonee dañuy teewlu docteur Aloyse Waly Diouf moo yoroon kàddu bës bi ci ministère de la santé ak action sociale. ci junni ak juróomi test yi ñu def. juróom ñeent fukk maanaam juróom di ay cas contact fukk di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci géejawaay ñett ci Rufisque benn ci mbaaw benn ci jàmm benn ci liberté benn ci bambilor benn ci kunun benn ci yaraax benn ci malika benn ci jamñaajo benn ci kebemer ak ñeent ci tuuba téeméer ak juróom benn yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ñetti malade ñu ngi ci suñu service réanimation ñu koy wax service sauvetage ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ñu des ba tey ci mbas mi ak njeexintal yi ci diwaanu Saalum itam jafe-jafe am na bu ñu ko waxee nag mooy bërëb fajukaay yi nga xam ne aji tawat ji léegi dañu koy daw ndax lanu ragal mooy mbas meek nanu koy tuddee ci réew mi ba tax na sax ñu ne euh, koppar ya fa daan dugg lim ba wàññeeku na lool ba noppi itam ñoo bërëb fajukaay yooyu daanaka rek jumtukaay ya ni soxla ngir mën a moytu ci mbas mi amuñu ko euh, ñu ngay sàkku itam ca waa CMU du couverture maladie universelle euh, maanaam liggéey defoon ci yi Euh, seeni at euh, gëm jëm ci juróom gën gaa mag ñu jox leen dañu leen ameel euh, dañuy dem ca diwaanu Saalum fekki fa Ibrahima Diame mu ànd ak Fally Gueye defal ñu ci gëstu. coronavirus installé na ko ci biir post de santé yi crise économique daanaka mu ngi leen di yott agent de santé yi fay liggéey di tàmbali di koy yëg bu baax a baax di xamle ne kër docteur yi le foo natt seen jafe-jafe romb na ko. moment euh, Covid bi ñu nekk. dañ gis ne post de santé yi dañoo am jafe-jafe yu mag a mag a mag yoo xam ne pour ñu am yenn matériels yi wala yenn équipement yi sax dafay am problème parce que li ko indi mooy fréquentation bi nit ñi ñëwatuñ ci poste yi fréquenté post yi parce que ñu ngi ragal feebar bi. dégg la ñu ne jotoon nañ ay don ci ñenn ci kilifa yi commune bi waaye nee nañ loolu xaajuta doy ñu ñaawlu tamit remboursement yi motul ci prestation yi ñu def ci xale yi toll ci zéro à cinq ñu toll foo xam ne état mu ngi wax ne fay na semi ñu gis ne semi bi ñu fay donc boo xoolee ñëpp wala ñu ci bëri jot nañ tranche yu ëpp li Kaolack jot. parce que boo xoolee Kaolack ci douze trim yi ñu yoreel li ñu national yoreel donc benn trim lañ ci fay mooy trim 1 trim 2 2018 donc loolu ñuy wax état de ko vraiment comme dañu ne woon euh, euh, données yi remonté wuñ ko au niveau régional bon waxtaan nañ ci ak médecin chef bu district bi won nañu ne que district régional ou ñeneen envoyé nañ données yi ba mu dem au niveau national donc li ci des mooy vraiment ñu dimbale population bi à travers semi boobu pour ñu mën a nekkaat parce que dañu gis ne poste yaa ngi souffrir poste yaa ngi sonn te moment bi vraiment dafa grave. comité de développement sanitaire yi de di interpeller agence régionale et nationale de la CIMI ñu fay leen kon liñ leen yoreel ngir au moins ñu mën a am li ñu jëndee matériel de protection mën na faggu ak lii di Covid 19. Ibrahima Diamé ñu sant la bu baax gërëm la des ba tey ci biir réew mi bu ñu jugee Saalum dañuy euh, jàll siin foofee itam euh, mbas tollu tolluwaay bi ñu ne foofu ca diwaanu Kaffrine euh, diwaanu Fatick ngeen baal ma ñeenti doomu aadama ñoo fa amee ji soxna ya nag ne xeebuñu ko ba tax na wàcc nañ ca mbedd ma yor seeni masque di ko séddale askan wi itam di waxtaan ak ñoom naka la ñuy def ba moytu bile jàngoro ca diwaanu Sine Aminata Goudia bi dañu fay fekk mu ànd ak Abdou Karim Bey ci caméra bi. lañ député wala sax membre au conseil des collectivités territoriales ay jigéen lañu nag ñoom ñëpp ñu takku woon te doon wër ci mbedd Fatick yi di séddale ay masque bërëb yi nga xam ne nag moom lañ gënoon taamu moom moo di marché central bi garage taxi bi nekk ci centre ville bi ak itam ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal jakartaay ak charité yi li ñu def nag dañu ngir fexe feebaru coronavirus bañ a duggatee ci biir région bu Fatick. mesure de barrière dañ ko war a jël ndax masque dafa doon loo xam dafa am solo fi nekk nii bàyyi nañ transport muy dem wante ñu war a jël suñu bopp ndax transport su xasee ba ñëw. moo tax ñu jël comme Jakarta yi ñoom ñooy nit ñi taximaan yi ñooy supporté nit ñi marché fi la nit ñi dugg bés bu nekk far ñu jox leen ay masque ñu mën aar nit ñi. di dem ak a ndax ku ndugg si te fu mu nekk contamination bi dafa gaaw. nee ñu li ñu séddale ci ay masque daanaka ëpp na ñetti junni te nee ñu liggéey bi dañ ko bokk ak yeneen jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci biir département bu Fatick yépp ñun yàgg nañoo commencé sax liggéey bi ndax femme bu ci nekk koñ bëgg a dëkk daf nga fa dimbal si askan kon nag lii peut-être dañuy ñaan mu am fi dañ sañoon tey suñ joxee tey fii ak ñetti fan feebar bi jeex loolu la ñu demandé 3020 lañ génn tey pour waaw pour pour pour ñëpp daal population bi am na ñoo xam ne jox nañ ci quartier tam ñu jox population yi ci quartier yi waaw moom la génn daal. service yu bëri itam dem nañ fa séddale fa masque yooyu rawatina maison d'arrêt et de correction bi nga xam ne moom moo nekkee ci Fatick. Aminata Goudiaby ñu sant ko bu baax gërëm ko ba tey ci séddale masque ak jumtukaay yi ni xeexee lii di euh, wala boog li ñuy yi ñi moytoo euh, mbas mi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kongaat ànd itam ak ay soxna yu ci wàllum càmm gi dem waxtaanee ñu ci mel ni ay euh, sàmmkat yoo xam ne nag dañuy màngaan ñu ëpp ca ñoom ñu nga dëkk foofu ca département bu guddi di tey itam loolu ñu naan geste barrière maanaam ñàkk sa bopp ñàkk ña ngay jëflanteel lu bari dañ ko ko umpale ba tax na itam ñu dox doxantu eh, ca Bala nekk eh, ci juróom benn fukki kilomètre daanaka ci Tambacounda Moussa Oumar Keye lañ ci àndal ci wàllum càmm gi màngaankat lañ fare ci arrondissement bu Bala nekk ci biir département bu Goudiri ñooñu nag am na ci ñoo xam ne dañu dund ci ay jafe yoo xam ni ngir nag ñu toppatoo mesure barrière yi nga xam ne war nañu xeex mbas mi dafay jafe ci ñoom ci noonu nag Kongad daal di dikk ànd ceeg waa Dirfel muy kuréel bi nga xam moo lëkkale jigéen ñi yëngu ci wàllam càmm gi indil ndimbal wan leen pexe yi nga xam ne buñ ci jaaree danañu musu seen bopp ci lu jëm ci wàllam mbas mi. dañuy ñëw eh, peggoo ci suñu yenn dëkk yi mel ni ay Kulor mel ni ay Bala ak ñoom seen wala Koupentoum eh, di fa suñu ay mbokk yi nekk ci forage yi ak ñoom di am ay ay ay jafe-jafe mbas mi nag bi mu ñëwee am na ñu bëri ñoo xam xamuñu sax li xew ci mbas mi xëy na dañu déglu tuuti ci rajo bi rek waaye donc dañu ñëw gis yéen seen bopp journaliste yi da ngeen tiit sax bi ngeen gisee ni gars yi tàncaloo ak masque yi mën nga leen wàññi bëriwul woon. bu masque bi lan mooy njëriñam wane niñ koy solee euh, wane gel bi niñ koy raxasoo wane ku ndaay bi liñ koy war a def loolu gis ngeen ne après bu ñu bu ngeen xoolaatee prise de vue da ngeen gis ne ñi fi toogoon ñëpp am nañ masque ñun masque yi ñu amoon sax doyul waaye préfet si boppam moo dem jëli ay masque dolli ko ci li ñu joxe. kii di njiitalal kuréel bi lëkkale jigéen yi yëngu ci wàllum càmm gi di diir fel di ajaaje na ba Sidibé nee na pexe moom ñu ngi ci ci njëriñu dolli di koy wut ngir na gën a mën a toppatoo wér-gi-yaram ñi nga xam ne ñoom ñooy màngaankat yi. président de la république ndax def na jéego yu rafet. joxe 3 milliards ne jàppandi leen pour ngir xeex feebar bi ci biir goxaat yi kooku xalaat na ne suba bu amee ay milliards dina ko dolli sàmm. kii di sous préfet bu Bala ak itam ki nga xam ni moom mooy maire dëkk bi di Bala ñoom nag ñu daal di lu taxawaayu Kongad ak dir fel di pexe yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir xeex mbas mi waaye itam tey ñoom nee nañu ibbi nañu seen i buntu fas yéene tàllal seen loxo liggéey ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum càmm gi. Moussa Oumar Gueye ñu sant la bu baax gërëm la wér xibaar yi ci tënk di kuréel gi euh, toppatoo lépp lu jëm wala boog ñu bokk ci lu jëm ci euh, liggéey ci lu jëm ci yoon ak yoonal di waa SYTJUST ñoom nag nee ñu euh, bisub tey jii bu dellu see maanaam ajjuma ba la ñuy séentu daanu wàcc ci mbedd mi amal ab doxub ñaxtu bokk na ci itam lanu ñaawlu rek mooy wala boog lanu rafetlu wut mooy soofantal gi nga xam ne dañoo jàpp ne seen jëwriñ daf leen soofantal rawatina ci seen seen jafe-jafe yooyu nga xam ne jooytu bi euh, yàgg na tey itam gisuñu benn yoon mu gëstu leen wala mu jooyanti leen ñu wax ci leneen muy itam defaraat aérodrome bu euh, diwaanu Saalum loolu nag day aju ci ñu yëkkati ay kër yu euh, bare bari seeni borom itam euh, tuxal leen feneen boole ko ki ndàmpaay ñaari milliards ak juróomi téeméer ci ay millions ñu ne moom lañ ciy def ngir daal di koy defaraat liggéey ba nag tàmbali na boobaak léegi mi ci benn ayu bés gouverneur bu Kaolack amaloon na faab tukki nemmeeku dañu koy teew lu kàddu yi Ibrahima Jàmme ak Fali Gaye ñoo ko taataan moom Alioune Badara Mbengue war na ànd accompagnement bi aussi mooy deux kilomètres de longueur piste bi liñ ci jot a am fii un kilomètre six cent la donc mu des quatre cent mètres quatre cent mètres yooyu xool nañ fii fii ci jàkkaarloo ak ci ginnaaw nee na ñu nag euh, quatre cent mètres yooyu xam naa pour ñu am ko ci lii nekk nii dana jafe donc il faut forcément rek mu am quelques quelques kër quelques bâtiments yoo nga xam danañ leen randal pour mën a am de kilomètres yooyu yooyu nag dañ koy def rek ci ci njëkk ci teraanga ci waxtaan ci njëkk ci teraanga ci waxtaan ñëpp xam ne lii ñuy defar defaruñ ko pour ma Samba defaruñ ko pour ma Demba dañ ko defar pour Kaolack yëpp dañ ko defar pour Sénégal yëpp donc loolu que préfet dana jël benn arrêté portant euh, donc euh, mise en place de cette commission aywa ñu wax ci euh, leneen muy fédération bi lëkkale waaye retraité yi ci Sénégal nekkoon nañ ci diwaanu cees ngir def aw taxaw seetlu ji seen ab liggéey ñoom retraité yu noonu itam lu ëpp ci seeni jafe-jafe indi nañ ci saafara lu ci mel ni euh, paj mi bu fekkee ni tawat am na waaye itam euh, fay leen weer bu jot lañu am ci allocation ci noonu Omar Ndiaye moo jiite kuréelu waaye retraité yu Thiès kàddu yi Cheikh Anta ak ak Seylatir ñoo ko taataan institution bi li mu war a def lépp mi ngi koy def ay garab am na ci pharmacie ku ñëw danañ la faj danañ la jox garab lettre prise en charge yi xaalis bi nga xam ne moom la IPRES di déposé hopital waxtu wu nekk hôpital ba ba ñu ko commencé léegi IPRES dafay préfinancé chaque fois mu déposé six cent millions mu séddale ko ci région yi hôpital régional bu nekk ñu yóbbu fa lañu fay yóbbu amuñu benn problème pour faju IPRES dafa laa biir waaye nekkul ci ay statut am nekkul ci règlement intérieur am nekkul ci fenn waaye Racine ci laa biiram ak président de la république ci laa biiram ñoom ñoo ni nañu jël retraité yi sanitairement nañ leen jël loolu fii rek la am ci Sénégal amul ci benn ci réewu Afrique yi ñun day retraité yi sant nañu yàlla fi mu nekk nii kenn ku nekk li nga daan am ñetti weer moom ngay am par bu kenn jaaxle li fi nekkoon moo fi nekk li daan def la ñuy def président Racine ak conseil d'administration bi ak direction générale bi ñu ngi disposition retraité yi pour satisfaire seeni besoins bu ñu jógee Thiès dañuy dem ca Ziguinchor wax ci leneen muy fanweeri waxtu yoo xam ne dañu ko toog ñàkk ko courant foofu ca benn wàll euh, bu commune bu euh, Ziguinchor régional bu Sénélec nag jàkkaarloo na ak taskatu xibaar yi indi leeral jafe-jafe yooyu fa mu tukkee ak nañu ko liggéeyee ay neeru njaay lañuy ñuy teewlu ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandia toggal ñu ci bët saalum réew mi ñoo ko taataan ngir yéen. yenn quartier Ziguinchor yoo xam ne nii courant bi daf euh, coupé foofu bon courant bi nag coupé boobu li ko indi dafa am benn câble bu nekk diggante euh, poste usine des eaux ak post camp militaire bu Georges Boissy bon cable boobu nag moo am problème ñu nekkoon ko di ci liggéey di seet fan la panne bi nekk bon panne bi bi mu amee léegi buñ ko xaymaa ci temps peut-être ça dure peut-être 24 euh, heures 2 heures du matin bii la am 24 heures plus maintenant le temps qu'il y a peut-être 30 heures bon panne yooyu li koy li koy waral léeg-léeg euh, Senelec du ko yëg nit ñi dañuy liggéey ci ay projet di gas ci mbedd yi léeg-léeg ñu blessé câble yi vraiment di di massawu bu baax a baax a baax population bi ci coupure yi ci jamono bi ñu toll nii. ay waa ñu wax itam ci leneen lañ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ca diwaanu Ndar géej xam ngeen ne statut Faidherbe bu boobilee juróon na fi coow ay jamono ba tax na sax ci réseaux sociaux yi ñu ngi doon yikkay kaat ni dañu ko fa war a jëlee ni ñu ko defee nag ci àddina wala bokk ci réew yu bëri ci àddina bi dañoo gis ne eh, ña fa nekkoon daal ñu jàpp leen ne ay jamono dañ leen a nootoon gisuñu lan moo tax ñu war leen faa mën a téye di leen màggal ak lu ni mel eh, foofu nag ci diwaanu Ndar géej Ousseynou Diop am na ñu mu dénk eh, kàddu boromi xam-xam la ñu wax nag mooy jot na jëlee ko fa ndax gisuñu lan moo war a tax rek moom feder bu moom mu war a nekk foofu ca diwaanu Ndar dañ ci ànd ak Ousseynou Diop ak Habib Seck. ba ñu fàttee George Floyd sa états ay réew yu bare nemmeeku nañ fa ay fippu daaneel ay statue wala ñu nërmeel ay nataal yu bare ci àdduna bi yooyee nataal ñu daaneel ña koy méngaleel dañu jàpp ni lii di noot der bu ñuul seen loxo génn ci ci ndar statut Faidherbe ay fan a ngi nii ñuy ruumandaat ci réseau sociaux yi ñu def ci war a topp Cheikh Diakité historien la ñaari xalaat la ci am bu njëkk ba mooy. nañu dindi bi statut bi war nañ ko dindi parce que euh, à la limite dama naan par exemple gàcce la pour sénégalais yi parce que metti na histoire bu metti la boo xam ne en fait kii daf ñu mettital. donc en fait comme gannaaw daf ñu mettital kii statut bi waru waruñu sax toog fii di ko xalaat. beneen xalaat bi moom ak maam Latir Fall bu forum civil ñoo ci yam mooy ni ñooñu duñu ay royukaay. na ñoo xam ne nii ci histoire àddina bi vraiment comme li ñuy wax seen taxawaay kenn rafetulu ko ay esclavage si la ñu ay raciste ñu añu ñooñu dafa jot nag ñu jénne leen fi indi ñeneen ñoo xam ne peut-être ay référence la ñu ils sont kooku c'est un débat actuel. source de conflit la te lépp loo xam ne en fait daf ñuy daf ñuy féewale ñun ñun ñun sénégalais ñun africains yi vraiment il vaudrait ñu dindi ko. waaye nag ci seen xalaat lépp dafa war a am ci dal te nguur yi itam dañ ci war a jóg ca na mu gën a teel. ñi ñu jiite ñoo war a am anticipation di déglu seen population fi mu toll di jël ay initiative bala ñuy egg fenn fi parce que mën na bañ jël souverainement mais suñu autorité mën nañ jël souverainement nag toog nee naa la du statut fédéral bi rek. yow fii ndar <laughs> ndar passé colonial am nañ fa ay rue yoo xam ni suñu xale yi boo leen ko waxee xamuñu leen. lu ci mëntam am bu fekkoon ni statut yi ay nit lañu jamono jii fi daawul nañ leen bu yàgg ndax toroxal bi ñu leen toroxal ci àdduna bi ci ndar ay at ngi ni le ñuy ruumandaat ni fédère bi daf fi war a jóge ci place bu ni mel waaye ñeneen yi ñoom beneen xaar lañ ci am jàpp nañu ni naam dañuy fàttali lu metti waaye nag ci taarixu ndar la bokk. Ousseynou Diop xibaaru biti réew ca tënk ca Côte d'Ivoire nag moom daanaka fi mu ne nii sëngeem ba tey moo fa am gannaaw nag ba ay euh, attaque terroriste amee ca bët euh, gànnaaru réew ma euh, ci frontière ak diggante Côte d'Ivoire la ak Burkina Faso ñu ne nag lu toll ci fukki doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci dig boobu rek ba tax na limaani jëwri ñi fa tegagum maanaam mu nekk fa nekkum nekkandiku ma ngay dalal xel yi nee na nag loolu dinañ ci def tontu bi war itam euh, dinañu yokk doole ñu yor seen wàllu kaaraange euh, ba woy fipp yu ni mel bu nu jàkkaarloo ak ñoom euh, jox leen la nga xamante ne si moom la ñu yellool yegg si nañ ci ponk bu mujj bi li ci yenn kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf boromuk fital gu soqik fitalam di yëglu maanaam tiir de sommation moom la général François Ndiaye def démb journal La Tribune moo ko bind xamal ñu ne président comité suivi fonds force covid 19 di général François Ndiaye ab janoo la xëy démb ak taskatu xabaar yi ngir doon bilan seenub liggéey taxawu gi ñu war taxawu réew meeg waa réew mi ci jamonoy coronavirus gi nu mu demee lan lañ ci def ak it lan lañu ci deful journal bi dañu ca ndajama fa la indiwaalee ay tonto ki leeral jëm ci coowal ndàmpaay li ñu moom la ñuy jox membre yi ci comité bi général Ndiaye wax wax nañu lu dul dëgg ñoom bénévolat la ñuy le quotidien nañu njiital comité suivi fond force covid 19 di général François Ndiaye taxaw na ñu ko gàlloon moo ki gaayam nee fii ci réew mi dafa ay nit yoo xam ne dañoo mel na ñu gëlëm ba tax ñu dëkk ay sos wax na ne aide alimentaire gi ñuy baaxee askan wi du mën a daj fépp te it du mën a dajal ñëpp les économies faay yu mën suur fa yi ci séddaleem dund gi général François Ndiaye génnee na leen démb général nee na bu weesoo ceeb bi seetlu nañu ne kit alimentaire ministères yi bari na yu ca manqué nee it ñu bind ñu ñu war a dimbali mu di registre ba nañu ko xoolaat ndax dese naa wér lisi nañu dem na bay xamleet ne bu ñu yaakaar loo wi lu mënut a nekk ne ndimbal lii du ñëpp ci mën a am ci enquête dina kay ba tey kàddu général Ndiaye mu defa leeral ne li ñu leen dénk mission la boo xam ne dañu koy wéyal dem ca ba jeex mbindeef mënu leen bi fàbbi l'observateur nañu général François Ndiaye wax na démb lu am solo ne nee na juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent yi jël jënd ci dund jagleel ko ñi seen bët xonk ci jamonoy mbas mi ndimbal loolee du daj ñëpp du daj fépp ndax matewu ko daanu dajul suuf suuf ki ñëpp bàkkee Baye Fallou di Moustapha Diop ubbil journal bi ñi génn di wax ak jug di ŋàññi doxalinu Macky Sall ci gestion Covid 19 bi ñooñee la maire bu Louga bi xëy di defanteel nee na dogal yi président Macky Sall jël yëpp ak taxawaayam bi mu taxawee taxawoo ko askan wi ci jamonoy mbas mi lépp gonga rek lépp jaar ci yoon président wan na ñëpp ne aw askanam ak intérêt général moo ko ñor ci la yore réew mi yamu ca ne ci xët mu njëkkulise ko ma nga fay sàkk moom Moustapha ci ñëpp ñu ànd gunge président Macky Sall nekk ci wetam jàppale ko ngir mu am ndam ci kaw coronavirus bi njatt réew mi mu ne it ki baax réew mi rawatina fi réew mi toll moo di Macky Sall bu doon borom kër la ñu ne nit mënu ko ci njabootam li koy wane moo di bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi amul benn ba misir bu mu fi jël te baaxul baa jaaduwul ba tax mu ne képp ku di ministre baa ngay militant bokk nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar na ñépp booloo jàppale président de la république tubayul ko taxawu ko ci kaw ngor gore ak dëgg gu mat sëkk ci noone journal L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne moom Macky Sall kase na code du travail bi ci réew mi ak bu bees bu ñu promulgué mu jëm ci wàllu emploi loi baak na mu tëdde ak ati retraite enquête yi ñu yóbbu ba ci juróom benn fukk ak juróom journalu groupe Futurs Médias bi mi ngi ñu koy leeralal leneen lu leer ba mel ne leeral mi ngi leere ci Source ubbi leen yéenekaay bi ministre de la pêche ak économie maritime di Alioune moo waxoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ne moom bi ñu ko takkalee ndombal tànku ministre de la pêche ak léegi amul benn licence de pêche bu mu signé yéenekaay bi nañu monsieur le ministre Alioune Ndoye mi ngi foowee am xelam ak numéro 174 di conseil en communication bu ministre Alioune di leeralal waa Source A ne de pêche yooyu ñu wax du ay licence de pêche yu yees ministre bi da ko renouveler yeesal ko rek waaye dara yeesu ci lu yees leneen ci mbiri Luc Nicolaï ma ca kaso bu kees l'observateur mi bindoon ne Luc Nicolaï dafa tàmbale grève de la faim ca kaso ba te kilifa yore kaso yu réew mi génnoon weddi xibaar boobe yéenekaay bi xëy na ca yeneen xibaar waraloon sax ñu évacué ko woon ci hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène bu Kees. Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci seen safo seen koolute ak euh, ni ngeen bëggee euh, télévision Futurs Médias duñu tàyyi di ko wax di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen fu ngeen mën a nekk aljuma mubarak dig daje ngoon ci kattan yàlla.